bu leen fàtte abonné ci seen seen Mak TV te activer cloche de notification boobee ngeen seen ci seen écran mbokki internet Mak TV Sénégal gannaaw bu ñu leen nuyoo rek di leen naan dal leen jàmm ci xibaar yi tey yi ñu fas yéene ka tàmbalek tolluwaayu mbas mi di coronavirus fii si suñu réew mu mel ni rek xel yi ñu ngi bëgg a tal ndax kat bu ñu sukkandikoo si communiqué tey bi juróom benn nit rek ñoo am doomu jàngoro bi si 453 tests yoo xamante ni daan nañ ko amal si six yooyee sax maanaam juróom benn yooyee ñetti ñoom ñoo nekk ay cas contact suivi benn ñu daat koy importé si aéroport bi di Blaise Diagne waaye cas issus de la transmission communautaire maanaam ñu nga xamante dañoo am doomu jàngoro ji te kenn xamul ku leen ko wàll waaye ba tey nag 121 euh, patients maanaam 121 malades nañ leen testé négatif maanaam wér nañ ba war a génn ni ki tey 7 cas grave nag ñoom ñoo nekk fële nga xamante mooy seen lalu sauvetage yi waaye nag li si xaw a gën a dal xel mooy que bi bisu démb amuñu benn nit bu nga xamante daan na si ñàkk bakkanam wet bas bi onze cas positif waaye quatorze mille quatre cent leen faj ba ñu wér waaye nag euh, trois cent vingt deux ñoom ñoo si jot a ñàkk seen bakkan bu ñu sukkandikoo si ñoom ba tey huit cent onze ñoom ñoo nekk actuellement si lalu hôpital yi. bu coronavirus bi moom di dellu ginnaaw mu mel ni rek euh, jaayum yàmbaa bi fii suñu réew moom day gën a am doole ndax kat du ñu sukkandikoo si waa douane ñoom nag daal nañu jàpp si lu tollook mille trois cent soixante seize kilogramme yàmba loolee nag ñoo ngi ko jàppee si diggante Bamako ak euh, Dakar maanaam foolee nga xamante ni mooy ca Kidira si benn camion bu nga xamante ni camion malien la bu yaboon ay conteneurs yoo nga xamante ne amul dara daat ko ba doon ko indi fii nga xamante ni mooy ci dakaar waaye nag bu ñu sukkandikoo si bureau boobee nga xamante ni ñoom ñooy wàllum relation publique ak euh, communication bu direction général bu douane ñoom nag loolu ñoo ngi ko jàppee si bésu lundi 26 euh, octobre bii ñu génn si booru midi ñoom nag bu ñu sukkandikoo si ñoom ba tey sax si 1376 kilogrammes yooyu 5 kilogrammes yi ñoom ñu ngi nekkoon ay brom dañuy desandi si xibaar yi rek daal di àddu wax ca leneen bokk ci émigration clandestine bi nga xamante ni mu ngi continuer di faat ay bakkan si waaxu Sénégal yi nga xam ni rek ay bés yi ñu génn am na benn gaal bu nga xamante ni dafa dawoon ba daal di tàq ba jeex gaal googee sax nga xam ni ba jamono jii ñu wax ak yéen xamuñu ñaata victime ñaata nit ñoo si ñàkk seen bakkan ndax ñu bëri dañu ba tey ñu ngi leen di seet si biir gi jamono joojee nag waa DIRPA ñuy wax ni rek am na beneen gaal bu nga xamante ni moom dafa daw ba daal di këpp këpp daw ba daal di këpp ndax gaal googooy bu ñu sukkandikoo ba tey si waa DIRPA ñoom ñooñu nga xamante ni ñoom ñooy waa marine nationale sénégalaise bi dañ ko séenoon muy dem Espagne ñu bëgg ko retourné muy daw di dàqanteeg ñoom di daw di dàqanteeg ñoom ba daal di mbëkkanteeg patrouilleur bi nga xamante ni mooy Sangomar waaye nag bu ñu sukkandikoo ba tey si ñoom rek am na 39 personnes yi nga xamante ni ñoom doon nañ leen fexe nañ leen ba jéem leen a transfert leen a ba daat leen ni transféré sax yóbbu leen si base de navale boobee nga xamante ni mooy Amiral Faye Gassama bu nekk fële nga xamante ni mooy ca dakaar waaye nag jamono ji ñu wax ak yéen police daal nay ubbi ab enquête pour fexe xam ñaata nit ñoom ñoo nekkoon si gaal googee si xibaar yi rek ba tey ak daw defkatu ñaawteef yooyee nga xamante ni dañoo sol woon ba mel ni ay gendarme ba taxoon sax ñu jàppoon benn xale bu jigéen bu amoon si lu toll fanweeri at tuddoon euh, Soda sooda moomee nag ñi nga xamante ni mooy ñetti agresseurs yooyee bañ ko jàppee dañ ko jël daat kay def rek maanaam ab foowukaay daat koy sàqu ku nekk rek daal di def li nga bëgg bañ ko jàppee nag daf ko sàq ko ba mu daal di sonn ba nga xamante ni mënatul dara ci boppam dañ ko jël daat koy sànni ci benn kër bu nga xamante ni dañ ko abandonné kër googee sax mu ngi nekk ci wetu bataillon transmission militaire bu nekk foofee nga xamante ni mooy ca yëmbal bu ñu sukkandikoo nag si journal bii di les échos yoo jëf bu ñu ñaaw jooje nag mu ngi am jeudi bii ñu weesu rek aux environs maanaam ay booru 5 heures du matin si agresseurs yooyu sax lañuy ñuy dese ni ba tey bu ñu fàttandikoo ay bés yi ñu génn rek moo xamante ni fële mooy sa Kër Massar nga xam ni nag ay oto yu bëri daal di woon nañ leen ne arrêté ñu ko defoon nag duñu woon dara ñu dul ay dafkatu ñaawteef ñu nekkoon si route nationale numéro 1 boobee daal di arrêté su lu tolloon si fukki oto daal di leen di palpe ñoom ñëpp. daal di jël euh, seen alal waaye nag bu ñu sukkandikoo si journal bi di l'observateur ñooñee am na kenn ko nga xamante ni sax daal nañ ko si jàpp te moom mooy mooy nga xamante ni mooy décisé bokkoon wala sax nekkoon kenn ku nga xamante ni moom moo yoroon ay mystique benn mbër bu nga xamante ni sax daal dinay siiw lool si nga xamante ni mooy si arène nationale bi moom nag fi ñu ko jàppee mooy foofee nga xamante ni mooy ca forêt classée bu mbaaw foofee nag ñu ko fekkoon daal nañ koy jël fekk si moom lu nga xamante ni toll na si juróomi portable waaye nag ab paaka bu nga xamante ni takkoon na ko si boppam moom mooy nag daal nañ koy defeere fële nga xamante ni mooy ca parquet ba gannaaw nag ba ñu interroger kookee nga xamante ni mooy mbër boobee mu doon àndal nekkoon fële nga xamante dëkk sax fële nga xamante ni mooy ca Tivaouane Peulh moom nag li mu wax enquêteurs yi mooy que ni musul xam ni moom moomee nga xamante ni mooy DCC ab agresseur la dañ koy jeexaleek kàddu yu ñaaw yooyee nga xamante ni kii di Emmanuel Macron daal na koy àddu jëmale ko si yoonu l'islam ba tax na daala mu jur ay coow yu bëree bëri si àdduna bi wërngal këpp ba tax na daal du ñu sukkandikoo nag si ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Jamra ak waa ONG Daaral Xuraan nga xamante ni imam bi di El Hadji Alioune Dia moo ko jiital ñoom nag ñu ngi fësal seen nakar ba tax na daal bu ñu sukkandikoo si ñoom dinañu yóbbu ay bés yi ñu jëm rek fële nga xamante ni mooy ca ambassadeur de la république bu France ab lettre de protestation maanaam pour mën a fësal seen naqar ak seen indignation ci loolee nga xamante ni président France bi daal na koy wax jëmale ko si lislaam ba tax na daal bu ñu sukkandikoo si ñoom ba tey li ñuy sàkku mooy képp kuy imam wala sax ngay prêcheur lii nga xamante ni kii di Emmanuel Macron daal na koy wax nga daal di génn daal koy fësal ñoom nag li ñu bëgg mooy lépp lu ñu fay waxtaanee nañ ko jëmale si lii nga xamante ni mooy kàddu yu ñaaw yooyee te Emmanuel Macron daat kay yëkkate jëmale ko si diine lislaam ba tax na daal ñoom it ba tey li ñuy sàkku bokk na si ajuma bi ñu jëm euh, lépp lu nga xamante ni prêche la dañu war ko def si jumaa yi na bokk si loolee nga xamante ni mooy kàddu yu ñaaw yooyu kii te Emmanuel Macron daat kay euh, kàddu jëmale ko si yoonu lislaam lii nag mooy li gënoon a fës si xibaar yi ñu daat koy yemale fii rek di leen jox dig daje ëllëg ak yeneen i information te di leen wax rek bu leen fàtte di abone ak di bës touche de notification boobee pour ngeen di mën di jot suñuy xibaar au temps réel. bu leen fàtte abonné ci seen seen Mak TV te activer cloche de notification boobee ngeen di seen ci seen écran.